procureur bi lim génne ci làmmiñam lañ bëgg a xam. moom laa lay wax. waaw dama ne la dem naa ci moom ci turu sëriñ am sa ci turu Xuddaamul Xadim jaar ko sëñ Basiiru Coro. Mhm. bi ma demee ni ko maître baabu dafa wax loo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko dégg ñu wax ne da teg ci derub sëñ Tuubaa loo xam ni dafa ñaaw tegginawut mhm. sëñ bi di ci laaj ba xam loolu ndax ñun duñ dox rek ci benn version kenn wax ñu rek ñu dégg duñ ci dem mu ne loolu ñu la wax amul ndax sëñ Touba sax ci ci biir ci biir ci biir ci biir fi nga xam ne mooy saal bi tudd ma fi sëñ Touba. boobu bi ma koy xam ne seede ni ma man sëñ Touba moom laa yaakaar moom laa bëgg kon du ma ko ci tudd. audience nag bu ñu ko defee di waxtaan dafa war a wax ni mu demee parce que bu fekkee dafa am ak règlement compte ak man jërul mooy jéem a jaxase ak kilifa yi ndax man euh, tudd ma sëñ Touba. ma ne mu demee mu ne ma dafa am kenn koo xam ne nii mi ngi tudd Serigne ku ñu wax naa Buso dafa jaayoon benn terrain ci benn waay ci cent mille franc demaat ba neex ko mu jaayaat beneen terrain bi ci keneen deux cent cinquante mille franc jaay ko ñaari nit benn mbir mi demee ci yoon ñëw may laaj may questionné ki ci des di ko laaj bañ àgg ci xaalis bi ndax da nga koo jënde terrain bi wala jënde woo ko terrain bi wala da nga ko def addiya ndax xam naa defoo ko addiya da nga ko jënde ci biir loolu nee na ci la maître Babou dikke dugg moom ci ni ko nag da ngay loolu nga wax da koy da nga koy dindi bëgg a bëgg a salfaane wax ji ci affaire ay addiya mais tuddul sëñ Tuubaa tuddul lu aju ci sëriñ bi ci diggante boobu nag ci la ko maire maître maître Babou wax ba tudd ko ba ba ba saaga ko mu ne ko boo ma saaga damay fayu maître Babou ni ko ni nga wax da koy rectifier mu ne ko du ko rectifier parce que waxuma lu waxuma lu garaaw ba ma koy rectifier ndax yaa ngi dégg. Hmm. bu baax loolu la ma procureur wax. Hmm. procureur bi ma koy wax procureur Ngom ma nga fa. Hmm. te gannaaw boobu jokkoon nañ ak président Diop dem nañ ba am ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne laaj nañ leen. la lii nag mooy waxi procureur li nga xam ne loolu la ko tudd ci salle bi. Mhm. la ko maître Babou ak seq moom muy règlement de compte bu mu ko bu mu ko defee ci sëriñ bi. Mhm. dégg nga wax ko ak moom. la lii mooy li nga xam ne loolu la te loolu loolu mooy seede yi am ci ñeneen ñu bari ñëpp. Mhm. maître Babou tamit toog na ma ak moom après bi ñu jógee ak yéen Walfadjri wax ma ne ma procureur bi daa wax Serigne Touba wax ju teggi na wut ma ne ko wax ma wax ji lan la mu ne ma du ma ko tudd ci sama lan. waaye daal na fi jóge waaye daal na fi jóge hmm. mu ne ko jóge fan mu ne ma kooku mënul nekk ci région de Diourbel nit nag su fekkente ne dañ lay loolu seen justice la hmm. waaye euh, tuumaal doomu moo xam euh, même bu fekkonte ne procureur jaawo dafa tudd loolu ci sëriñ bi maître Babou ci magam waru woon a ñëw ci wàllu fajiri di ko tuddaat wal fajir en direct mënoon na am beneen doxalin bu mu ko doxalee bañ a yee fitna ngir dem gisee ak ñoom wala mu gisee kilifa yi waxtaan ci ak ñoom man loolu laa loolu laa loolu moom rafet wu ma ko. jërëjëf moom rafetlu wu ma nag mooy hmm. euh, ku tudd sëñ Tuubaa te wax ci wax ju tegginuwut ñun danañ ko fajal suñu bopp mais du caagin ne rek nit dañu koy wax rek waxoo ko ci télé waxoo ko ci rajo ka nga wax ni da koo tudd ñu dem ci moom mun a tudd ko moskee jaar ba pare yaakaar sëriñ bi waaye nag débat euh, débat bi nga xam ne moom lañ doon wax te mooy débat débat tribunal ku ne xam na ci Ibrahima léeg-léeg nga ne nga tudd sëriñ bi sax ni sëriñ bi ñu ne la fii bu fi tudd sëriñ bi bu fekkonte ne dégg nga la koom euh, li nga war a def def nga ko kon doo fi ñëw ndax sëriñ Tuubaa lu jub la bëgg lu dëggu la bëgg. loolu moo loolu chaque jour toog nañ ci Ibrahima di ko wax. jërëjëf jërëjëf man yoon i yoon lay gërëm bu baax loolu leer na Moodu allah. version bi leer na bu kenn doomu aadama. Hmm. di ko jag ci yoonu murid hmm. murid yi tamit jóg am na tam ñu ma jokkal Ndakaaru hmm. ku ci wax ku ne wax na nee naa leen ci turu sëriñ bi ndax amuñu lenn la jërëjëf nag kenn ko xeexe. jërëjëf muy man muy sama morom muy keneen ko xeexe sëñ Tuubaa ci dëgg xam ne nag moom la ñu baaw. Modou jërëjëf leer na parce que dafa am ñeneen ñu ñu war mu nekk nii yow li ñu soxla woon rek li nga wax ni li ñu soxla woon mooy version procureur laa ma nangoo mu dugg sama nopp te foon maa foon deux heures de temps hmm. man ak procureur Ngom ak ki nga xam ne moo fa nekkoon ci saal bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon baax na jërëjëf jërëjëf Modou ñu ngi koy gërëm ñu lay jaajëfal bu baax donc di ko sant loolu benn élément la